salaamaaleykum gànjaay gi nga xamante ne fii lañuy ñuy yeewoo gannaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonent bi sant suñuy ñaari waajur ñu ngi gërëm àdduna yépp di gërëm nag suñu kilifa suñu njiit suñu mag di suñu lépp baabu ngom ndax lii yépp moom la seex waral li tey daa am ko xewle xewle bés bu foor ay fansam yi nekk ci àdduna dajaloo ne dañuy def sargal Maodo ca Gandiaye muy kañ la 14 la 14 nag muy samedi bii di ñëw Gandiaye dara du fi yomb duñ bàyyi dara dara du des luy sabar jéembe tama ku ñëw dinga ko gis ku teew di nga gis ku ñëw dinga dégg ku bëgg a dégg rek samedi rek ñëwal Gandiaye spécial la Maodo Ndeye Fatou. ok li ma for war na mën a toll ci à ah, quarante sabar te am na yeneen raafoor yuy ñëw ndax jëmbe yaa ngi ñëw junjung yaa ngi ñëw duñ bàyyi dara daal lépp la ñuy matale te du doon làmb it kese day am làmb parce que dañoo foog ne làmb rek lañ mën ay professionnel lañu dañoo jàng aar tarbiyu ko doon na ko ci ndey doon na ko ci baay sama yaay di ndaanaan sama baay di ndaanaan sama maam di paar ca siin amuñu tànku ginnaaw tànku kanam lañu am dëgg neexul samedi nag la lépp di leer seex incha allah rabi. salaamaaleykum euh, mbokki internet yi mbokki Lac-Rose TV tey ñoo ngi fii ci Gandiaye Gandiaye li ñu fi andi nag euh, fans club Maodo ñoo koy defal sargal euh, duñ def lu may di ko bett moom itam dugg ci ay am di jaamam laaj leen naka la ñuy dundee ñoom. Marie ziar nañu. waaw sëñ bi ñu ngi leen di delloo ziar waaw. waaw tey de Maodo dañ koy defal sargal benn fans club fans club ñoo koy defal sargal man lan nga ñu mën a wax ci Maodo Faye. wa mawdo mom suñu boy la suñu lepp la ñun ñoo yarog mom si koñ bi waye eh, jamm lañu wan ak eh, yar wa ñu limi yëngu it ñu gën ko ko bëgg xeyna mom mom manam maanaam eh, katu lamb la waye da ñun mën nañu ñoko gëna bëgg lool manam da lima la mënte wax dal suñu boy la suñu lepp la voilà bisu sargalu tay bi nak suñu bis la mawdo momo kom ngom ñepp ben lañ ci ñun momo ba ma waxe wax ji nee naa ko de ah lolou lu rafet la fekk mako wo sax niko man de suma sañon sax mawdo lañ koy sargal mu ma grand effectivement non la demee waaw. kon lolou ñun ñëpp ñu ngi ci contane ñun wa ganja yëpp ñu ngi ci contane ak lu làmb yëpp tamit ñu ngi ci contane waaw le 7 euh, même le 14 septembre euh, aussi mom amna bis bu mak mom ak ndey Fatou Adama jali ñu ngi ciy woo ñëpp aussi di ci wo amateur rek wa Colobane ak ñom manjaay rek gaay yëpp ñom Ablaye mbay gaay fan ci club bi siyaar na lan nga lu mu wax ci Maodo Faye tey jaajëf grand ñu ngi lay siyaar bu baax ñu ngi leen di delloo njukkal di leen di féliciter ci seen liggéey bi ngeen di def nii affaire yi naaj na trop maw moom suñ maw la quoi maw moom comme sànq rek suñu rakk la ñun nee nañ bi gars yi ay waxu fans club bi ñun dañ ne ne ñun loolu suñ ko da ngeen ñoo fekk ci suñ yëpp waaw affaire bi moom benn famille bi la rek ko ci benn famille bi la tey moo moo booy moom moo moo xewle waat ko ko bon famille boobu benn problème amu ci ñun ñëpp benn lañ bon chaque tamit lu rafet lañ ciy wax lañ ciy dox booy di gën a déggoo di gën a boole woon. waaw mais dëgg artiste ma tëggkat hmm. hmm. xool bu paree léegi nga gis mu soomeeku petit camp ñun bu ñuy dem entraînement mu ànd ak ñun de football bëlot beeg ataaya bi fu ne lay toog amul amul amul frontière ci dëkk bi. amul benn koñ boo xam ne mun na fa dem am fa nga foog ne fii la Maodo fekk féetewoo wala fee la féetewoo déedéet ñëpp ko bëgg fii booy moom wax dëgg fa neex yàlla ay booy yu naaj lañ amuñu problème rëyuñ bon duñu wone ay de artiste la di wane ne comme ay affaire de grandeur yooyu noonu non non booy suufe nañ bon jox nañ cër gaa yi ñu war a jox cër ñëpp tamit. sang bi ziar nañ la. waaw ñu ngi delloo ziar bu wér sang bi. waaw tey def trottoir micro trottoir ci Maodo Faye lan nga ñu mën a wax ci Maodo Faye. waaw waaw Maodo moom grand bu baax la wax dëgg neex yàlla bu mën li muy defit waaw ganoon na grand boo xam ne kenn amul fayam daal te li muy defit mën na ko aar bi mu ne moom mën na ko trop trop trop trop trop trop. waaw léegi da ngeen bëgg wax yéen waa Gandiaye mu ngi leen di bëggal daal waaw Maodo mu ngi bëggal depuis bañ juddoo ba léegi mun nañ wax ne Maodo mu ngi ñuy bëggal wax dëgg neexaa la hmm. ba suñ jamono tey jii Maodo mu ngi ñuy bëggal de hmm. waaw waaw ndax dafa mun li muy def Gandiaye heure boo fu wàccee fekk leen fi kilifa gi ziar nañ la bu baax waaw maa lay doon ziar bëri wér champion bi man Fallou laa tudd hmm, Fallou loo ñu mën a wax ci Maodo Fay waaw Maodo kay baay kenn la si biir taam bi wax dëgg gannaaw yàlla yonti moom Maodo moom waaw champion si biir dëkk bi waaw mu ngi jàppale dëkk bi te ñëpp waaw mu ngi jàppale ñëpp fu ko wooyee sans dara day ñëw jàppale ñu waaw si Maodo daal moom lu la mën a wax daal si gàttal am kenn amul fayam daal wax dëgg moom gannaaw yàlla yontu bi moom fii moom moo sin waaw sin tëggkat moom lañ préféré mooy champion mooy def li nga xam ne moom ñun moom lañ bëgg waaw gannaaw yàlla yontu bi amuñ dara du lu ko di ko ñaanal di ko yokku daal muy gën a góorgóorlu waaw yàlla baax na loolu laa ñaan waaye kenn waxatul loolu ñoo ngi sant bu baax a baax war na alxuraan karim ñoo ngi sant si moom lu baax waaw léegi programme bi samedi loo ñu ci mën a ah waaw xanaa kay programme yi ñëpp ñu ñu teew rek pour ñoo jàppale ko rek waaw. loolu la xam yéen ñi nga xam ne yéen nga xam ne yéenay waa Jakarta est-ce que pare ngeen. kenn waxul xam ne ñoo fi wàcc ngeen di leen guider di ñëpp nañ ñun ñëpp ñun ñëpp ñun nañ borom wëccëg sax bu leen neexee nañ leen jëlaale bu gën a dee boog. ñun ñëpp pare nañ ñu ñoom fi ñu xewlee dañuy ñëw teew parce que ñoom ay borom baax lañ. waaw fi ñu xewlee ñoom dañuy bàyyi seen lépp ñëw teewal ñu defal ñu ba mu baax comme ñoom bu ñu xewlee ñun dañoo war a ñëw bokk ko ñoom. Euh, ñoo ngi jóge jóge yi nuyu nañ la. sëñ bi ñu ngi lay ziar. waa lan nga ñu mën a wax tey ci Maodo Faye. Maodo ah Maodo de nit ku baax la. vraiment suñu rakk la. non suñ lépp la daal. nit ku baax la vraiment te si vraiment si lim nekk aussi bon jox na ko cëram. parce que nit amul dara du sa métier. aar bi mu nekk vraiment mu ngi ciy def li nga xam ne daal moo moom mu ngi koy teg ci yoon daal ci gàttal ñuy ñaan yàlla nag yàlla na ko yàlla gën a jàppale daal ci ay projet am ak ay kii am waaw. léegi bésam boobu di le 14 yéen a koy préparé. waaw bii la le 14 muñ ko ñàkk a préparé parce que ñu amul keneen ku kenn ku dut Maodo Maodo la ñu am parce que waxuma la dara mais turi gànjaay da ko yóbbu fu nekk yaa ngi dégg man damay toll ci télé bi dégg di déglu télé sax buy dégg ñuy tudd Gandiaye te grâce à Maodo kon kooku su demee ba am bés nag il fallait que ñun ñu def si lu ñu mun. tey ñoo ngeeg Layti euh, Layti nuyu nañ. ma ngi leen di fay bu baax. waa tey dañuy ñëw ci di préparer bésu Maodo Faye lan nga ñu mën a wax ci Maodo Faye. waaw alhamdulilah rabil alamin Maodo moom suñu rakk la danañ sawar trop pour wax ci moom aussi ndax ñoo yaro wondoo fii ci Gandiaye diggante Gandiaye ak Mbélo Ngij yaakaar naa ne trois kilomètres la te ñun ñëpp fii lañ jàngee surtout man man moom diggante ngulang ak tooko ndama bi fii laa yaroo kon Maodo bu dee moom gànjaay la dëkk boo pare ay waajuram dëkk fi yaakaar naa ne wax ci moom dana doon lu sawar gone gu baax la goo xamante ni mu ngi def carrière bu exceptionnel ñun ci suñu bopp dañuy wax ne ñun dañ koo amel njukkal parce que dafa neex ki nga bokkandoo localité mu mu agrégé mu maanaam mu mu ci dara yàlla dimbali ko mu am muy am réussite ci benn mbir yaa xam lu mu munti doon tey jii nii fierté Gandiaye la fierté Mbéélu Ngij la fierté maanaam fierté région de Kaolack yëpp la parce que Sénégal kese du région de Kaolack kese te Sénégal kese du Gandiaye donc am na yeneen localité kon bu Maodo di def lii suñu fierté la yéen da ngeen koy tiitaroo yéen waa Gandiaye ñun dañ koy tiitaroo bu baax a baax a baax a baax loolu moom am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem. léegi bés bi ni ngeen koy préparé muy le 14 septembre. maanaam booy boo mën a la nu ñuy préparé bépp bés boo xamante nii rek sénégalais yi jël nañ ko def ko seen nopp pour bañ a tudd bés beneen bés mais loo ci mun a xam daal mooy ñun ñëpp liñ ci mën ak liñ ci mënul yëpp incha allahu rabbi dañ ko ci jéem bu soobee yàlla. waaw Maodo de moom mooy suñu artiste. parce que moom comme ni ngeen ko xamee ñun artiste bu ñu fi am ñaar lañ amoon muy euh, ndéem si yàlla Yandé Codou Sène ak Babou Ngom te Babou Ngom ku ko wax nag wax Maodo parce que vraiment lañ ko ci jox yëpp mu ngi koy def à la lettre te nitu nit ñi la ah. depuis ñu bokk primaire ba léegi nitu démbam fàttewu leen te et puis daal moo suñ artiste moom moom programme am daal xam naa ne moom waa Gànjaab dañ ciy sawar waaw gàncax ak environnement ak environnement quoi gan yi waa gan yi nga xam ne ñu ngi ñëw ci bés boobu yéen leen di préparé. ñu ngi leen di wax ne daal ñu ngi ñëw ci waaw ci dëkk bu mën gan. waaw dëkk bu xam teraanga gan et puis dëkk bu xam aussi njëriñu artiste parce que dëkk séeréer lañ ne. donc moom fi mu ñu féetee daal xam naa gan yi ñëwee euh, dinañ xam ne daal féete nañu fu sori quoi. soxna si. waaw fay nañ la sëñ bi. tur wi naka la. mami mami Faye. mami Faye loo ñu mën a wax ci bésu Maodo bi. Ah, ñoom daal ñu baax leen ñu ñoo nekkandoo Gandiaye mais vraiment li ñuy def apprécier nañ ko waa baax nañ yaatu nañ te ensuite euh, am nañ jiite si ay nit vraiment. Mhm. mais yéen jigéenu Gandiaye ya ngi préparé bés bi. waaw ñu ngi koy préparé xam naa bés du yow moom dafa nar a ala daw mi yéen a ma gën a xam parce que mbéy gi ak Maodo moom suñuy gars yi baax lañ vraiment amuñ benn problème waaw. mais dégg naa waa Gandiaye dañoo mën sabar est-ce que préparé ngeen lool. waaw ñu ngi koy waajal bu baax a baax jàppale na du yomb daal ngeen gis li ngeen xamante ne mooy loolu noonu ngeen gis li ngeen mës a gis àdduna yaa ma gën a xam. léegi xale yi jigéenu Gandiaye di wax ñu préparé bés. <laughs> waa ñu wax ñu préparé xam nga ñu dem avec euh, du respect euh, non violence ñu dem waa xam ne ñu ñu teewal daal ay doomu Gandiaye leen ñu def euh, def ba mu baax daal yaa ma gën a xam comme dab waaw. <laughs> <laughs> wal say say ah ñun moom xam nga ku ñu xam mom dégg nga ñu vraiment ñun moom ci ay soldat la ñu dox ya ma gëna xam jàppale leen bésu daal du yomb incha ñu mëna wax ci Maodo Faye tey. Maodo vraiment Maodo mom suñ toogoon di wax ci moom fi moom duñ fi joggé quoi oui vraiment suñ grand bu baax la te yit lu amit ñun dañ ci moy loolu dal dañ ci jappu dal parce que fi da bolé bopam ngulang quoi. moom lépp lu muy def day ñëw fii wax ak gars yi waaw gars yi dooleel ko yokk ko xalaat Maodo daal vraiment amuñ fem quoi di ko ñaanal rek lu mu bëgg si àdduna moo ko xam quoi yàlla jàppale ko boo fi ñuy dégg tëggkat yu mag yi au niveau yi ñu dégg ko fa quoi. ñoo ngi ak waa Ngaraaf yéen yéenay waa Ngaraaf lu ngeen xam ci bésu Maodo. ah bésu Maodo moom mun na nekk bés bu mën a yomb yaa am gën a xam ndaxte Maodo def na fii gans loo xamante ne waaw benn tëggkat defu waaw ànd naag Paa Babou teel a génne nekk xale bu ndaw toj yaa ma gën a xam ñu ràññee ko si moom tamit ñu yóbbu ko tamit fu ne mu def lu ne yaa ma gën a xam génne lu ne moo tax it bësam yaa ma gën a xam mënul yomb daal waaw noonu la fa mën a demee. mais yéen a ngi préparé bés bu baax. waaw bés bi moom mënul yomb le 14 moom mënul yomb waaw.